seytaane di sant yàlla ci dëkk bu tedd bu màgg bu sori bii nga xamante ni tey fi la ñëw ngir yëkkati sunu kàddu sant leen yéen serviteurs yi bàyyee ko fépp ci Sénégal sant leen ci déplacement bi nga xamante ni def ngeen ko di sant sunu borom moom mi nga xamante ni tey jii dafay tombeek at at ak fukki fan ak juróom bi nga xamante ni yëkkati nañ sunu kàddu ne dañoo bëgg dem teewal leen assemblée nationale ngeen wuyuñu wuyu boo xamante ni kawe na sunu njort ndax ba ñu ko waxee daal di génn ci biir réew mi fu nekk ñu dem fa ay guddi ay bëccëg bàyyi xel waa Tambacounda waa Saint-Louis waa Ziguinchor waa Sédhiou waa Matam waa Goudiri waa Kanel waa Bakel ak ñi nga xamante ni mooy les sénégalais de la diaspora fu nekk ñu dem fa ngir taataan seen kaddu ñu daal di ñu koy dénk daal di ñuy yabal fu nga xamante ni moom mooy pentu ndaw réew mu nekkoon liggéey bu am solo di leen sant ci dëkk bi nga xamante ni fi la ñu yëkkatee sunu kàddu te démarré fi woon fi sunu campagne muy caajaay di sant waa caajaay bu baax kilifa yi teew fii di sant sunu jur bi nga xamante ni jël na fi kàddu muy Yérim Faye di sant tamit ba di ko gërëm di ko sant di ko wax nañu kilifa gi fital nañu kilifa gi digëral nañu sant nañ la cant ko am am na fa mu tàmbalee waaye amul fa mu yem di sant serviteurs yi déplacé wu yëpp di sant borom ba bayal bi nga xamante ni moo ñu dalal muy soxna Anta Sougou di sunu yaay di sant soxna euh, Mati Dem bi nga xamante ni fi la ñu ñëw di sant ñi nga xamante ni ñooy sunu kilifa yi sant Sall ñi sant Diouf ñi sant Ba ñi nga xamante ni ñooñu ëmb barab bi di sant bu baax suma waa kër muy waa kër góor gi Jibril Fall di leen gërëm di leen sant ci seen taxawaay ak ci seen détermination ak ni ngeen jugungee su ma tuddee ñooñu mooy tudd naa ñëpp ñi nga xamante ni sonn nañ ci ci liggéey bi muy samay mbokk bopp ak ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal caajaay yëpp di sant le coordonnateur communal muy Balla Gaye di sant ñi nga xamante ni ñooy ñooy Mamadou Dieng ak ñëpp ñi nga xam bëggoon naa jaar ci seen tur kenn ku ci nekk sant la gërëm la bés bi nag ni ma ko waxee léegi ci tubaab dafa méngoo ba nga xamante liggéey bi nga xamante ni ñoo ngi koy def ànd ci ak sunu jëwriñ yi ak sunu kilifa yi nga xamante ni ñoom dañ koy defal ci biir réew mi yëpp dañ leen a bëggoon a yëgal depuis Caajaay yëgal ko sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak yi nekk ci bitim réew ne leen dinañu sax sunu ndënd bokk yi nga xamante ni moom mooy am élection yooyu dañu ciy bokk ndax li tax ñu ciy bokk mooy waa Sénégal ñoo ko bëgg waa Sénégal ñoo ko soxla waa Sénégal ñoo ñu ko laaj waa Sénégal ñoom mu benn fukki at ak ñaar jëm ci juróom benn fukki at ak ñett waa Sénégal nee nañ sonn nañ tey jii meeting bi pour ñu def ko dañoo ko def ndax tey jii tey am ñu suuf suñu bayee mbooloo mii fi seen doom yaa ngi nii toog am ay diplôme liggéey wala sax ak mbooloo nga xamante ni ñoo nekk fépp ci biir Sénégal. ku ci feebar doo mën a faju bloc opératoire bu Thiadiaye bii yàggul dara ñu ciy gërëm suñu wayjur As ñoo ci taxaw xar ci suñu tànk Dubaï. xuloo ko bind lettre ouverte au ministre de la santé pour ñu mën a fexe fii kenn dootu fi am doom di fi dee loolu loolu 62 ans après les indépendances waroon nañu ko weesu caajaay gii ñuy waxee ak yéen tey nga xam méngoo na lool ak li xew ci réew mi yëpp caajaay gii bu 5 heures ci ngoon jotee soo moytuwul dootoo am ndox boo tijjee robinet du ñëw ndox mi ndox mi ngay naan ndox mi ngay naan doyul. wala bu doyee baaxul moo tax ñi fexe sax nee nañ yee ba ndox mi ñëw ku ciy ñëw jaajaay da ngay indaale sa ndox mooy naan bu ñu ñëwee ci ñun juróom benn fukki at bi ñu amee indépendance ak léegi saa buñ ñuy seet si dañuy indaale ndox ya ñuy naan ndox ndox yi ñuy fekk ci suñu dëkk yi duñ ko bëgg a naan Sénégal bii ñu nekk tey boo xamante ni lañ ñu digoon ci démocratie amul li am mooy justice boo xamante ni dafay dafay def kumba am nday ak kumba amul nday su ma su ma su ma su ma nijaay Yérim Fay tudd na fi léegi góor gu tedd muy Jibril Fall su xëyaan day dem toog fii ci sous bi la mu fa doon def Yérim Fay mën na koo defi lan la fa doon def mooy dafay toog ku ñëw ñu néewal la doole mu taxaw ba nga am fa doole ku fa ñëw amoo fa ku la taxaw mu fexe ba nga taxaw la tey jii am na ci dëkk bii ñàkk jaay doole googu am na fii ba tey te ni mu amee caajaay la amee ci réew mi yëpp jaay doole googu mooy lan mooy soo amee soo yoree pouvoir lu la neex ngay def meeting bi balaa ñu koy def tey jii lu ne daj nañ ko pour am autorisation ba ñu ko amee daanaka fu ne jaar nañu fa. pour daanaka daanaka dem nañ sax ba laaj ñu benn demande rek ne comme nag ngeen am sonorisation waaw mas ngeen a gis meeting bu amul sonorisation. ku ne la damay def meeting kay mooy am na sonorisation waaye nga dem ba mu ñëw ay kilifa ngay woowaat leen ñëw ngay dem leen ngeen bind demande ndax da ngeen di am sonorisation réew moomu mooy Sénégal loolu la bëgg mu jeex fi bundu xatal mënatul wéy ci Sénégal waaye waaye ni ma koy waxee. jamono bu ci nekk lépp lu ñuy wut lépp lu ñuy sàkku ci réew mi dinañu ko am de ci xam-xam lañ koy amee ci teggin lañ koy amee ci yitte lañ koy amee ci ngor lañ koy amee ci jom lañ koy amee ci fula lañ koy amee képp koo xamante ni nag da ngaa jàpp ne képp koo xamante ni da ngaa jàpp ne ay ragal nga ko seqal wala ay mbuqat nga ko seqal. yeboo nga xam ne yeboo li xew ndax seetlu ngeen seetlu ngeen ne ba ma ñëwee ci yéen ba tey ne dama bëgg a nekk député booba ba tey bu ngeen ko seetloo lu ñu gëm rek la ñuy wax lu ñu xam rek la ñuy wax lu ñu mën rek la ñuy wax leen wax lu ñu xamut duñ leen wax lu ñu mënut duñ leen wax lu ñu narut fii ñu jëm tamit lu ko raw lu ko raw ci itte lu ko raw ci xam-xam lu ko raw ci taxawaay loolu ngeen di fekk ñu ànd ak moom ngir soppi li nga xamante ni moom mooy xar kanamu Sénégal ndax gis ngeen gis ngeen ci geeru tudd naa ko léegi bi Covid 19 ñëwee bi Covid 19 ñëwee am sénégalais yoo xamante ni dañ leen a dugal ci hôpital amuñu oxygène bu ñu noyyi ndekete boobu xaalis bi ngeen dajale ñu am ñu ñu ko jox ngir ñu dimbali ñooñu wutal leen oxygène. ndeke am na ñuy jàpp xaalis boobu di ko détourné di ko lekk sàcc ko ba pare indiwaat ko ñëwaat ci yéen di leen ko neexale loolu mënatul mënatul am mënatul ko nangu te loolu dafay jeex ci Sénégal bu ñu nekkee candidat bu ñu nekk sunu sunu nekkum sunu nekkum candidat sunu nekkum candidat ngeen fas yu gunge yéen ñëpp ci biir réew mi ñu ciy woo borom xam-xam yi ñu ciy woo borom yitte yi ñu ciy woo le secteur privé ñu ciy woo le hommes et les femmes d'expérience yi nga xamante ni ëllëgu Sénégal ñor na leen ne leen ba ñuy déclarer suñu candidature le 22 avril dañ doon wax ne nous sommes la troisième voie. Sénégalais yi nañu. bu leen waxaatee nous sommes la troisième voie wax leen nous sommes la voie. bi nga xamante ni moom la Sénégal yi doon xaar kon léegi nous sommes la voix rek ngeen déggati xëccoo tamit troisième voix léegi li ñuy wax mooy nous sommes bel et bien la voix qu'il faut au Sénégal bi Ukraine Ukraine Ukraine Ukraine ak Russie bi ñuy xeex si Ukraine ak Russie bi ñuy xeex ñun ñëpp dañoo am gàcce gu dañoo gis kiy jiite réewum Sénégal dem ba Russie ba Ukraine ba Russie ngir ñu yalwaan ngir ñu yalwaan blé blé boo xamante ni moom la ñuy dundee soixante-deux ans après les indépendances amuñu sax lu ñu mën a liggéey lu ñu mën a dundee alors que dëkk bi ay jàmbaar ñoo fi nekk loolu nag su fekkee ne bëgg ngeen mu jeex ci réew mi tànn leen candidature bi nga xamante ni moom lañ leen di proposé ñu dem palais de la république gouverner Sénégal ko ci jàmbaar def ko ci soppi xar kanamu Sénégal ndax mën naa nekk soppi xar kanamu Sénégal mën naa nekk yàlla xam na ne yàlla xam na ne suñu wóoroon ne matewuñ ko yàlla xam na ne suñu wóoroon ne Sénégal matu ko yàlla xam na ne suñu wóoroon ne su ngëm suñu ngëm matu ko yàlla xam na ne suñu bëgg Sénégal suñu wóoroon ne suñu bëgg Sénégal matu ko sunu bopp matu ko kon dañu taxaw mukk ci seen kanam leen dañ ko bëgg ndax yàgguñu sénégalais ñi yàpp sénégalais yi ñi yàpp sénégalais yi ñi yàpp sénégalais yi xam ngeen leen xam ngeen leen mooy ñooñu nga xamante ni dañuy wax ci kaw di wax ci suuf ñi yàpp sénégalais yi xam ngeen leen mooy ñooñu nga xamante ni yenn saa yi nga dégg leen ñu ne ndagoon nañu fii dem xëdd ji fële ñi yëpp sénégalais yi mooy ñi nga xamante ni ñi yëpp yi mooy ñi nga xamante ni dañuy wax ci kaw wax ci suuf yëpp sénégalais yi mooy ñi nga xamante ni dañ naan promesse yooyu promesse yooyu ngeen déggoon dañoo bokk ci promesse yi nga xamante ni on avait décidé de ne pas les tenir ñi yëpp sénégalais yi mooy ñi nga xamante ni dañuy tabax ay hôpital yu bon ci Sénégal ba fukki xale ak benn daal di fàdd ci hôpital bu Tivaouane ñooñu ñoo yëf sénégalais te ñooñu lañ fi jëlee à partir du 25 février 2024. 25 février 2024 fële Balla Gaye wax na ko léegi ak Mamadou Dieng ñu ne ah jëmm ji nga xamante ni mooy Papa Djibril Fall. 25 février 2024 dafay am fanweeri at ak juróom-ñett ñu ne ah moom nekkul xale ñu ne waaw xale la ndaw la waaye xale ak ndaw yàlla buy yónnee sax xale ak ndaw lay yónnee. dëkk bële di France à six Sénégal en deux mille dix sept dañoo tànn xale boo xamante ni fanweeri at la am ak juróom-ñeent mu jiite soixante huit millions de français am bouton nucléaire bokk ci cinq puissances yi nga xamante ni ñoom ñoo ko ëpp doole ci àdduna bi waaye ñun lan moo tax ñu xeeb suñu bopp lan moo tax lan moo tax gëmuñu suñu bopp ñun de ñun de mësuñoo am privilège. boo xamante ni état du Sénégal moo ñu ko jox mësuñoo am boo xamante ni état du Sénégal moo ñu ko jox sàcc ñu seen suuf sàcc ñu seen alal baar baare yóbboowuñu defuñu dara loo xamante ni naqari na leen lu dul lu dul lu dul Sénégal jàngal ñu Sénégal yar ñu Sénégal xamal ñu ak dëkk bii ngeen nekk tey fii la ñu école. école Notre-Dame de la Paix bi may gërëm ay eh waa école Notre-Dame de la Paix di gërëm di gërëm waa mission catholique di gërëm jëmm ji nga xamante ni moom moo ma jàngal ba may def CI mu nekkoon ku yéeme ci xam-xam ak bëgg a jàngale muy monsieur Yves ñi ma bokkal classe xam nañ ko di gërëm monsieur Antoine Diom di gërëm madame Virginie Thiaw mi ma yor C1 yor ma C2 di gërëm bu baax madame Anna bi CM1 ak monsieur Pierre Sagne bi nga xamante ni moo ngi fii di dund moom moo yor CM2 li tax may wax lii mooy je suis reconnaissant je suis reconnaissant à la nation sénégalaise kon candidature bii ñu nga xamante ni yàlla sunu borom dogal na ñu yëkkati ko ñu yëkkati ko ko fii nga xamante ni moom mooy caajaay ngir mu daj biir ngir mu daj biir biir euh, Sénégal yëpp ak bitim réew soxna Khoudia nar na ko tasaale ci diaspora bi nañu laxasaayu nañu takk ndigg yi nañu takk sër yi nañu takk duba yi ndax lii jëm ci sunu kanam parrainage du ñu téye caution caution du ñu téye parrainage du lii tax tamit ñu prêter serment lii tax tax ñu prêter serment le 25 février 2024 gisuñu ko ko sunu kanam. ndax góor gaa ngi fi ndax jom baa ngi fi ndax fit maa ngi fi kon serviteurs yi jóge fépp ci Sénégal ak ñi nga xamante ni ñëwuñu loolu lañ teg ci seen loxo loolu lañ teg ci seen loxo di leen gërëm di leen sant mënuma leen a fay ndax ba ma yëkkatee sama loxo woote. wuyu bi yéeme na wuyu bi bett nañu di gërëm bu wér waa Touba Mbacké di gërëm bu wér waa Tivaouane di gërëm waa Dakar Medina Gounass di gërëm waa Thiénaba di gërëm waa Ndiassane di gërëm waa Popenguine di bërëm di gërëm waa Medina Gounass di gërëm bépp pàkk suuf boo xamante fii ci Sénégal ay kilifa ñoom ñoo ko dëkkee di gërëm waa Sénégal yëpp mag yi ndaw yi jigéen ñi góor ñi xale yi c'est la candidature de la jeunesse vous n'avez pas la jeunesse la jeunesse au Sénégal il n'y a aucune candidature qui a comme résultat la jeunesse voici jërë ngeen jëf